mbokk yi ñoo ngi dellusiwaat ci waxtaanu juróom-ñetteelu mi nu jëmee ci li nga xam ne mooy al isra wal mihraj waaye tamit di ci fàttaliku bu baax ki nga xam ne moo tax nuy def waxtaan bii ñu toll ci waxtaanu juróom-ñetteel bi muy cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké cheikh Mouhamadou Fadal ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ba soxna Awa Bousso mu nekkoon koo xam ne ci guddi googu di al isra wal mihraj ci guddi googu la suñu boroom feeñal ca Daru muy tolloog ñaar fukki fan juróom-benn jàpp juróom-ñaar ci weeru rajab fekkoon nit Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci niñ ko jàngi ci histoire. mi ngi doon taalif xasida gu ñuy wax ma fatihul bisri wal amna wal janna bi salaatin wa taslima la muqimi sunna saxal na ñett ne mi ngi tolloon ci bayit bi mu naan yaa faadilan fadalahul xalaaxu yaa man bihi faraxinil imlaaxu nga xam ne mi ngi ci junju ngëneel yi ko yàlla defal ba du taxaw fenn foo xamee ne que dafay sàkku lenn ndax lépp suñ borom deseñal na ko ko ba dajale ko indi ko jox ko ko te kooku mooy ma Mamadou Fadal nga xam ne yit wax nañ ne wax na ne feneen fu mu feeñoon danaa fa lakkali huit te keroog ba ma ko yàlla indilee laa noppee yeppar yepp ci fenn dem di sàkku ji lenn ndax ngëneel yëpp indaale na ko nga xam ne yit ba mu gënee jamono wax nañ ne dafa indaale koor wax nañ ne bu ko kenn jox dara taqental ak dara bu ko kenn jox dara nañ ko bàyyi noonu ndax dafa indaale koor fàttaliku yooyee tamit Cheikh Mamadou Fadal ci boppam jàng nañ ci siwaar mu wax ne aji fàttaliku la ndax fàttaliku na bis bi mu gën a jamono te it nga xam ne fa lañ ko tëraloon muy néeg ba kubéer gañ tëjewoon néeg ba it ceeñeeru jant ba doon jaar ca peri sàkket ya di dugg ci biir nee na mi ngi séen ak ngi koy gis bi Serigne Touba yabalee maam Thierno. ak sëriñ Bousso bi it nee na sama nijaay jooju wala sama maam jooju ñu ñëw ba taxawee tiim ma maa ngi leen doon gis loola nekkoon nag lu am solo loo xam ne ak dundam nekkul lu niil ak dundam it nekkul lu nuy fàtte dañ ko war a teg ci taabal ji di ci tànn di jël di jëfandikoo ndax loolu mooy li ñuy jariñ waaye mel na ne umpule gi ñu ko umpule tax na daanaka ab fawukaay lañ ko def ci fànn yépp nag ndax képp ku di murit su yëkkatee kàddu jëmee ci Cheikh Mamadou Fadal mi ci bari daanaka doo ci mën a jariñu xol bu sedd rek nga ci mën a jële ak yaakaar loo xam ne si wóor ni la ne doo ci def muy yaakaar ne ni sa xol bi sedde yàlla mën na la cee defal benn xéewal wala benn ngëneel boo dul jaar ci jaamu yàlla wala nga jaar ko ci ab liggéey loolu nag moo tax ñu def ci ay taxaw seetlu fas yéene ko laabire ñi nga xamante ne si it ñoom laa bokkal sëñ Tuubaa bokk ak it diine ji te am ci gis-gis war cee taxaw di ci wax ndax jëmm ju toll na Cheikh Mamadou Fadal kat ku xam dayoo bi mu indaale ak fi mu bokk ak li sëñ Tuubaa def ci moom ak ni mu ko waggare ak ni ko doon toppee jëfandikoo ca ba xëy làqu ci atum 1968 jàpp naa ne képp kuy wax war ngaa jëme say wax ci nees mën a def ba jariñoo ci moom waaye tiim ko di yéem tiim ko di nettali ay karaamaaki xikma a ah, loolu de jàpp naa ne day góom la bu ñuy raay raayal rek waaye du fajo mukk ci àddina te day gën a wunni rek bu yàggee mën naa yàq organe bi mu nekk kon ku ne yooy la ndax moom lim am lépp gannaaw ba ko yàlla boole sëriñ Tuubaa su ca toogoon yem ca képp day mel ne day dundee barkeb sëñ Tuubaa te du jariñu ci sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa la cay jariñ du ak judd du aw askan sëñ Tuubaa dafa am lu mu indi lool yàllaa ko ko jox mu jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war a nekk ki yeesal diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhu alxarra wa inni ahmadu Sëriñ Tuubaa xamoon na kan mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye lim koy topp topp ak lim koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba jël njabootam gépp sédde ko di dox ci ab liggéeyam ba tudd xaadimu rasul mësuta jël mbirum yàlla di ko jaxaseeg mbirum yonent bi mësu koo def dafa wéetal yàlla ne teg ko ne jël yonent bi ber ko fële di jaamu kii di liggéeyal kii loola ak roy doo nga ko ko teg mosu cee tegg tànkam nag benn noyyi mosu koo noyyi te noyyiwu ko ci liggéeyal yonent bi noyyiwu ko ci di jaamu yàlla moo tax mu ne salaatu sitta bi matxi sitta taati ibatta maati say Cheikh Mamadou Fadal mii bi mu gënee jamono foof yi rek la ko sëñ Tuubaa jaarale ndax lépp lu ñu defal nit ku baax defal na ko tuddee na ko tur bu baax jàngal na ko alxuraan yar na ko tarbiye na ko tarxiyee na ko lëggéeyal na ko it moom Cheikh Mamadou Fadal moom lëggéeyal na sëñ moo tax it tànk ba sëñ Touba tegoon jëm ci yonent bi moom la Cheikh Mamadou Fadal teg jëm ci ki nga xam ne mooy sëñ Touba wax jooju la wax nar a guddee nar a bare nañu xool jéego yooyu ñu di ko wax nit ñi ñu xam ne lu baax du yomb àjjana it kenn nu fa dem te jéemu woo yàlla nii ñu ko bëggee jàppee def ko buntu boo xam ne buntu àjjana la boo xam ne si ñiy wax daanaka jikko yi gutut rek lañu def te sëñ Touba misaaloon na ñetti picc nee na ngeen mooy seen jikko yi bu leen doon roy te ñooñu tey lu yàq ko ñoo ko yàq ñu ne ko picc man mu ne piccum guutut ñu ne ko ak man mu ne piccum tan ñu ne ko ak ban mu ne ganaar mu ne ñett ñooñu bu leen ma jëlal seen jikko yi piccum guutut mooy fu mu toll wax ji dafay bari di ratatati tànkal nit ñi te boppam dong nga ko ñor loolu yaakaar naa ne ñi nekk ci nawet bi xam nañ ko loolu it dafa am ñu ko jël nekkee ko ci yoon wi coow lii seen coow bari na lool plateau plateau conférence conférence ngonto ngonto ñi ngi koy def eh, sonal nit ñu yutt ci réseaux sociaux yi di indi ay xissa ay karaama yoo xam ne si dara wéru ci yoo xam ne si lu tooyal xooli nit ñi ñu yëkkati lamb la ca seen alal seen i pos jox leen ñu dem faji seen i soxla moom mi ñu jox alal ji du jariñu yow mi yow mi koy joxee doo jariñu te ñaari mbir yu ñu seq di ko jëf te kenn du ci jariñu moom loola lu mat a teel a dànd la kon ñooñu ñooy piccum gutut gi ba tey it mooy piccum tan nee na tan foo ko fekk nanguwutal liggéey waaye medd rek lay dunde ku nanguwutal liggéey fokk nga dunde medd loolu am na ci ba tey am na ci ñoo xam ne si duñu xëy duñu gont seen yitte yépp mooy nu ñu fexe ba yor seeni mart di wër di dóor rek te wéer ko ci jëmm ji nga xam ne ab royukaay la ak bibliothèque la nekk université nekk daara nekk école barab yooyu xam ngeen barabu waggarukaayu xam-xam la te ñoo fay dem ñëpp sàkku xam-xam lañ fa yóbbu léegi ñooñu ñëpp nag ci jikkoy tan jooju lañ nekk dajale li ci poche nit ñi di dajale di lekk di jël ay aaya wala duñ laal aaya di jël ay xasida yooyu la ci sëñ ba jublu ak ñoom lañ koy firee du benn ngir gis nañ ne nit ñi dañoo réer ba pare bëgguñu gindi ko ci lëndëm lañ bëgg di dox toujours boole ko gëmmu seeni bët loola nag yaakaar naa ab dox du ca mën a am ñooña nag lañ soxla gurgur leen yeew ci genn buum ngir lan ngir alal ja nekk seen poos di leen digluñ amul di leen digloo xam ne si amuñu fenn fuñ ko mën a fekk te ñu ngi ko wér sëñ Mouhamadou Fadal sosal Cheikh Mamadou faadal nee na nangam nee na nangam nee na nii te dara du ci dëgg jël jaamu yàlla teg na te moom ci jaamu yàlla la doon dund ci liggéeyal sëñ tubaal la nekkoon ci jub la doon dox ci muñ la doon dox ci sutura la doon dox ci bi la doon dox yooyu day par pièce yoo xam ne si benn bu ci ne mën naa jëriñ waa addina ak waa àllaaxira amul benn ponk diine boo xam ne si Cheikh Ahmadou Fadal mos na ko bàyyi ñu jël yooyu yëpp taxañ teg nale di ko couper di koleel di sosal di wax loo xam ne si dara du ca dëgg góor ak jigéen koo gis mu naan Cheikh du Fadal juróom-ñaari sëñ Fallu nangam ba ma ne nangam te ñi koy wax jigéen ñu saggan la ñuy doon jigéen ñu saggan ak góor ñu saggan ñoo xam ne si ña nga ca digg saytaane di ko liggéeyal boo xoolee plateau télévision yi da gis ne ñi ñi ngi ci feccukaay yi dindi seenu yaram xam xameewuñu farata wuñ sunna te koo wax mu ne sañ fallu laa yaakaar di déglu ñooñu rek nga xam ne toujours ñu ngi jël ay vidéo di ko publier ci ay cantake ay màggal ay conférence ay plateau télé sëñ fallu amul morom sëñ fallu amul morom kiñ am ñun rek a ko am kenn du morom kenn waaw jël am mbër nag di ko e, dóor ci kaw yi ñeneen te yow mi nga xam ne yow da ngaa bëgg jariñu ci moom fasoo yéenee daan kenn du ci sa jikko du ci saw melo du ci sa dara lu dul yow saw làmmiñ képp nga xam ne bu jógee ci yow kenn mënatu laa xam ne yow yow mii eh, ab jullit nga wala ab murit nga loolu mooy ñi nga xam ne ñoo yore jikkoy tan yi nga xam ne kër gun dem rek dañuy yor seenu couleur cuub leen bu nemee ci kër Cheikh bi yor couleur bu nemee ci kër Serigne si yor seenu couleur bu nemee kër maam si Ibrahima seenu couleur Serigne bu ci nekk am na ko dañoo am ay Serigne spécial nag yoo xam ne si moom la ñuy dunde ci yoon yi ku ci jiitu mooy Cheikh Mamadou Fadal ka ca topp mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina bu dee ci cheikh si it ku mel ne sëñ Dero Assane ndax xam nañ ne ñooñu fii ne dañ koy xam sax ba fu ñu toog bu ñuy waxtaan cheikh bu ne danañ ko danañ ko tudd wala ko yor seeni bët di xool nit ñi fu ñu tudd rek buñ fa déggee ko wonk rek ñu ne foofu nooy na delluwaat ca indiwaat fa moom it ay yoo xam ne si amul na kenn njariñ loola ka ko doon def ak kañ ko doon defal diggam ak moom la ci ak fay gu ko yàlla doon fay ak fay nag bala ñu laa fay da ngaa liggéey fay la ba pare nag Euh, nga jël fay ga topp ko di ko dig nit ñi te jërloowu leen ci fañ mën a def ba mën a fayu loolu moom ak càggante la kon ñooñu ñoo yor ji koy yi li ci nit ñi lañ soxla ndax ku leen soxla ku nekk boo leen woo danañ la santage danañ wuti seen équipe boo xam ne si équipe la boo xam ne si ku la ci dàq wax lu juunu ku la ci dàq sóob nga ne kii la su ko defee nag dañ leen di installé fi barab fu ñu toogee ci tànt kii day toogee nii kii toogee nii kenn ku ne def ci sa poche dara loo xam ne si ñoo koy yëgoo su ñu demee ci dundu Cheikh Mamadou Fadal di wax ay xisa yoo xam ne si dara taxawu ci wala boo ko waxee du jëriñ kan kenn daal di naaw ca ñooñu daal di dikk ni lamb poos bi génne joxe ne ku yaakaar sëñ Fallu génneel nangam ñu dajale ba dajale fa dul jeex ak lañ leen di fay ak fayu gañ cay fay loolee mooy jikkoy tànn ndax amuñu xëy amuñu godd ci yooyu dong la ñuy xëy ak tele yi nga xamante ne si ay caaxaan lañ ko lañ ko tabaxee ñu ji ci xëy weeru koor ak lu nekk ñu di leen ca woo ñu yëkkati di tal tali te dara luñ mën a wax lu wér lu nit mën a jariñu amul nga xam ne ku dégg tey jii Cheikh Mamadou Fadal ci nii ñu koy nettalee doo ko nawlu mukk te loraange doo nga la ciy fekk ndax kala ko yóbbee du kenn ko dul kii di bëgg a dundee mbedd te fasul yeneen liggéey beneen bi ci des mooy ganaaru seq nee na ganaaru Cheikh day na ngeen ma moytoo yoral jikkoom ndax moom fu mu gisee ganaar gu jigéen rek fat fati laaf ya daal di wuti defe ne yéeg a des loolu bari na ci ñoo xam ne si fi ne ñoom it loolu dong la ñuy dund dañuy boole jikkoy médd muy tat mi ak jikkoy gutut yi ak yore jikkoy Cheikh ji bu ñuy waxtaan seen bët bi du teggu ci jigéen ñi mukk ci seenu xeesal ak seen xotti ormag ak ni ñuy wuññee seen i ayib seen i cër seen bët yi du tegg ko ci ñoom nga xam ne bu ñuy wax sax dañuy dugal ci wax ji lu xorom nga xam ne da ngay dégg ñuy xàqtay waxtaan ci diine nag boo koy def nit ña di ree te kenn yëgul ne maanaam yaa ngi wax lu dul boo paree ñu laa diw de sa wax ji neex na ay diw li wax ci sëñ Fallou ko neex loola xamal ne loola jariñ du ci am ñu génnee nag commencé di santa santé ñuy bindante ay ay ay numéro téléphone ak di whatsappante ak di bokkante ci ay groupe kenn ku nekk di wut ay ay ay tendance ci sa morom déw sa waxtaanu démb ba def maa neex yow ma safe nangam ak nangam nga fexe ba jaar ca loola ba may ca yàlla te loola gis nañ ne ñii di wax yor gi koy seq gi ñoom ñoo ko def kon sëñ Tuubaa du waxante Cheikh Mahamadou Fadal mii ku ci bëgg a jariñoo da ko roy ci ak taalibe xool na mu bëggee woon sëñ Tuubaa kat da ko daan liggéeyal ndax liggéeyal moo fi def gannaaw ba jaamu yàlla liggéeyal liggéey sëñ Tuubaa moo la mën a génne ci yi liggéeyal sëñ Tuubaa googi nag du ay wax kese moo ko man liggéeyal sëñ tubaa ku koy def da ngay futti ko dem liggéey am lu lew ñëw di ci jox sañ tubaa addiya te tey sa ngor ba mën ko jaamu yàlla loolu mooy liggéeyal sëñ Tuubaa te Cheikh Amadou Fadal ñii ñii waxal na boppam ne ku dul liggéey doo mënal sa bopp dara te sa diine du taxaw te sa diine du rafet ndax liggéey ak jaamu yàlla mooy mu xer xer yi ci wàllu boppam nag mooy liggéey bi sàkket bi mooy julli yi jaamu yàlla gi na la wóor ne bu ay xeer amul sàkket du taxaw bu xeer amee te sàkket amut it dara sutura du am ci ci àddina du am ci àllaaxira kon nañ leen di boole ñoom ñaar muy sariixa ak ak xaqiiqa kon liggéey moom ala kulli xaal des ko war ndax waxoon naa ne ne Cheikh Mamadou Fadel mii ñi tiitaroo ak di yor seenu làmmiñ di ko di ko dundee te fasuñu yéenee xëy su ñu yéenee gon di ko bëgg dundee ci lu dul wax lu dul dëgg ak di ko sosal ak di ko soreel ak nit ñi ci jaamu yàlla ay tool la yoroon dëkk yi ngeen gis yëpp ay tubaab ba ay didek ay aliyaat yooyu yëpp ngeen ko déggee ay tool la woon yooyu da ci daan bay di jël di liggéeyal jox sëñ Tuubaa ndax damaa defe ne kenn mënta jege sëñ Tuubaa ba gën ko jege Cheikh Amadou Fadal ci wetoog ndey ak wetoog bàyyi ko taalibe kon nag moom moo mën a yor mbubbum sëriñ Tuubaa sol ko ba pare di futti ku di liggéey jàpp naa ne kuy tuddoo sëñ Fallu war ngaa a futti ku dem liggéey kon roy gi damaa jàpp ne dañ koo yem ci bëgg a te fa suñu yéene dundal li nga xam ne moom la doon def moo tax lu ci baree bari fi ne kenn mënatu koo wax ba nit ñi gëm ndax benn xisa la ñu jël juróom benn nit wër ko kenn ku nekk lal ko ci marché ba di ci liggéey kii nettaleeku nii kii nettaleeku ne la te kenn du bokkaleeg sa morom te ñoo bokk benn wax bu nuy wax kon nañ bàyyi sëñ lu lii ñu koy sosal te roy ko ca nam doon liggéey la sëñ Tuubaa ni mu doon jaamu yàlla ndax doom yëpp mës ta génn jaamu yàlla sëriñ Mouhamadou Moustapha Falilou mii nga xam ne moo fi jëkk wut muy sëriñ Modou Bousso Dieng ñëpp dégg nañ ni mu demee woon ci sëñ Fallu njariñal kese la woon da doon jaamu yàlla di léegi sëñ Modou Moustapha lañ ko tuddee moom lañ ko joxoon moo ko jàngal ci Daaru Nahim ak mbokkam ma sëriñ Moustapha Bassirou ñi cay jàng sëñ Modou Moustapha sañal leen lu ne di leen jàngal liggéey di leen jàngal diine di leen jàngal lépp di leen yar ak di leen jàngal ak taalibe gis nañ ne moom nii ci wàllu boppam bi muy woote Kazu Rajab get bare na am na kàddu yu am solo yu mu ci jiital ci diggam ak sëñ Fallu te damaa jàpp ne na gën ko bëgg sëñ Fallu moom xanaa ab taalibe bi mënta àgg ba ba raw te téewul dafa yoroon ay tool daan bay boole koog di dimbali nit ñi boole koog ngir jaamu yàlla kon kuy roy war ngaa mën a roy Cheikh Mamadou Fadal ak njabootam ak roy ko it mu doon doxee ci Cheikh Maam ak ci Serigne Touba fi may daaneel it mooy fa ma daanele woon keroog rek ñi ci bare bare ñu laal ci Sëñ Touba rek def ko kaala teg ci seenu dox def ko mbaxana sol koy daal di teg ci kaw nit ñi du noonu ndax cër ba nga am ci Sëñ Touba Cheikh Mamadou Fadal la ci ndax moo ko jur te yow mën nga ne moo def nii sama maam wala moo ko seexal wala moo jur sama baay wala moo def nangam te Cheikh Mamadou Fadal moomu day koddaay li gënoon a rëy ci moom mooy sëñ Tuubaa la defoon koddaay moo tax jamono bi nga xam ne nii Senghor doon na ñëw di ci Touba ak ngan gu mu ko doon def mag ñi gis yëre yi Cheikh du Fadal doon sol te mooy li ñu naan tenue de travail bi muy sol daan dem ndokk di taxawu xeer ya bi ñu liggéeyee jumaa ji diirub ay at 1948 ba 1963 boobu ñu ko ubbee. Cheikh Mouhamadou Fadal yëre yooyu la daan sol takk digg li ndax daana wax naa naan muñ suuf laa ci ñee waaye ak taalibe Cheikh Ibra laa ci ñee taalibe gi la jëloon fas yéene ko roye Cheikh Ibra Fall moo tax liggéey Sëñ Tuubaa dawul wax dem leen liggéey acca leen ñu liggéey lay def yëre yooyu mu daan sol nag gis na ne yenn yëree gënu koo màgg ndax di liggéey ci ay ay yëree yoo xam ne moom nga liggéey jumaa ji liggéey ko ci taxaw njabootu Sëñ Tuubaa gi yooyu yëree koddaay gënu ko rafet koddaay gënu ko wér koddaay gënu ko baax maa ngi ñu ci nag ne ko danoo war daal danoo bëgg nga dimbali nu kat ñu changé la sa yére yi comme président de la république dafay ñëw waaye yërmaande ja tax mu nangul leen loola waaye moom xam na la muy def ba ñëwee ba wax ko ko dem wut seen garam bu wutal ko yam war a àndal ak yépp daal di koy indil bés ba jot Senghor bi mu ñëwee sëñ Fallu léegi yére yam doon sole ndokk moom la moom la indi bi mu ko solee mag ñi yéemu lool ndax lañ ko waxoon ak lii mu def kat gis nañ ne yéem na leen ba yëf yi jàllee ñu ñëw ci moom laaj ko ko na ko noonu kan mbàkke dañoo jubóo woon a yow ci wutal la yëre nga sol mu ne waaw waaw dama leen a yëre moon def ko waaye ku Serigne Touba doyul koddaay dara dutu la doy koddaay man ci askanu sëñ Touba laa bokk loola ku mu doyul koddaay ba ngay génn di ci jéem a safaat leneen sa message bu jàll te loola rek moo mën a jariñ ci nit sëñ Touba bokk ak sëñ Touba roy sëñ Touba waaye bokk ak sëñ Touba toog dunde ab barkeem moom lu ne nga di ca dugg moom loola moom wax dëgg yàlla mënut a kenn dara ñi ngi soññi ñëpp ñu bàyyee xel Cheikh Mamadou Fadal du ku nuy këll këllee du ku nuy waxtaanee ci ay xar baax dañ koy roy dañ koy topp di déglu ay ndigalam lu juunu lu ne ñu ne sëñ Mouhamadou Fadal ni ma ko waxee woon ci njëlbeen ki rek da ngay gis fecckat boo xam ne si day def bopp kese xeesal ba weex tàll xamewul ci farata xame sunna toujours luy luy luy xeeblu islaam ak luy sànq islam ci lay xëy boo waxee mu ne sëñ Fallu laa yaakaar sëñ Baara laa yaakaar sëñ Modou Bousso Dieng laa yaakaar te dara dara dara dara lu yàlla santaane du ko def waykat ba moom it way ma nga ciy génne ay clip ndax defe na loole muy génne ci clip ab yéegukaay la ko def defe na addinaam dana ci jag alaaxiraam dana ci jag ndax ki ñoo ne ci lëndëm réer gumba ba pare nag yor wërsëgu addina nag nit ñi nga xam ne ñoom tamit ñoo yor jikkoy guutut ak tan ak ceq di leen wër di nit seeni làmp di leen jàpp seeni loxo di tàbbal wuti leen sabara ñu bokk ci mam moom ñoom tamit gis nga ko ay kiliba lu ne ñu ko ci def ñii di ko tudde ay tur ngir ne kat nee na turandoo wu ne mënuma laa xottil mboota waaye danaa la booleeg sa day tabal àjjana ñu jël fàllu moomee saggane ko amuñu ci moom soxla jàngaluñ ko alxuraan yaruñu ko ah bàyyi ko ba mu nekk mu kàllaf magum jëm dugg ci lu wërta dugg loola xotte orma sañ fàllu la waaye du ak bëgg sëñ fàllu ku ci yaakaar àjjana yëpp na nga xam ne eh, sàq mi ta seexoo dara la waaye loola moom Cheikh Mamadou Fadal digewu ko Cheikh Mamadou Fadal waxu Cheikh Mamadou Fadal daal la mu wax képp ku ko tuddee turandoo na ko def ni mu def sëñ Tuubaa boo ko defee daal def ci moom alxuraan def ci moom xam-xam yar ko yarub diine bu ëllëgee moom lool yi mu wax bu la ca fekkee nga nekk ci it loolee day daal di confirmer waaye su fekkente ne nag da ngeen ko jàppee tur wi képp loola moom amul ci alxuraan sëñ Tuubaa bind ko Cheikh Ahmadou Fadal bind ko kon ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen numéro wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu